arrivé Ndiaga est-ce qu'on risque de vivre pareille situation que 2019 bu fekkee ne li Pape Sané di wax bien vrai que y parce, eu quelques parce, changements ci bëgg a yokk mooy tey jii y a aucun recours tey y a y a ba tey jii yokkaguñu aucune possibilité de recours mooy boo bu Ndiaga dugalee tey jii parrainage am ñu ne ko baaxul te tegoon nañ fi loo xam te ne pour dissuader les citoyens de parrainer deux ou trois candidats tegoon nañu ay sanctions on l'a jamais exécuté également exactement euh, Aïssatou gis nga 2019 euh, est-ce que xam nga ni ñaata doublon moo amoon cent soixante mille doublon téeméeri junni ak juróom benn fukki junni doublon maanaam ñu pare na ñaari nit et pourtant pourtant code état bi dafa prévoir ci disposition pénale ñu sanctionné leen mm-hmm. mais lan moo xew sanctionné ñu kenn Euh, beneen bi mooy euh, il faut quand même ñu nangu ni am na amélioration ci système bi. ci diggante bi ñu ko defee ak léegi. Euh, ndaxte d'abord tirage au sort bi nga xam ni yéen a ngi fàttaliku mooy xeex bi amoon buntu. conseil constitutionnel. si njëkkante maa njëkk a dugg. ancienne premier ministre. Aminata Touré la woon ak Malick Gakou def naa waaw Malick Gakou. parce que l'enjeu c'est quoi mooy yow boo njëkkee déposé. bu ñu la valider maanaam bu amee doublon ci ñeneen ñi. yow ci yow lañ koy valider ñoom dañ koy dindi si ñoom euh, mais aujourd'hui réglé nañ ko par le tirage au sort dañu wax ni léegi tirage au sort la ñuy or euh, la ñuy defee euh, ci la sukkandiku pour def maintenant contrôle bi ak voilà contrôle bi ak ak vérification bi maintenant am na aussi loo xam ne réglé nañ ko au-delà de cadre bi parce que cadre bi tax quand il faut quand même que conseil constitutionnel de daanaka loi bi joxu woon obligation mais quand associé woon na en fait société bi pour ñu ñëw superviser Euh, wax dëgg yàlla aussi jamono boobu tamit doon nañ édité maanaam liste bu fekkee yow ba ñu rejeté amoon nga possibilité ñu édité ko. Mm-hmm. mais système bi dafa dafa sévéroon ba nga xam ni euh, boo defee benn erreur ci lettre ci tour bi. wala nga def benn erreur ci euh, tur numéro carte d'identité bi. wala machine bi da koy rejeté parce que machine bi day jàpp ay taay ak par exemple tey ku tudd taala nga bind taala bi ak benn L. wala silla à la place de de silla avec yi nga bind ko ak Y da koy rejeté. mais tey euh, am na ay amélioration am et bu njëkk ba par exemple bu ñu leen ne xam nga dañu la laaj dans nga war a wut 2000 signatures tey bu fekkoon par exemple da nga ñëw koo xam ne da ko bind région par exemple de Diourbel fekk moom euh, électeur Kolda la machine bi da ko doon rejeté mais aujourd'hui système bi def nañ ko noo xam ni moom su boobaa da koy affecté directement fi mu fi mu fi mu fi mu nekk mooy Diourbel euh, maintenant nag comme ni ma ko waxee léegi mbir mi mënoon la gën a yomb parce que nag aussi wax dëgg yàlla Euh, démocratie euh, ñi bëgg a nekk candidat dañu war a nekk candidat donte nag effectivement am na ay conditions yu ñu leen di laaj. Hmm. mais conditions yi maanaam warul sévère bay remettre en cause le principe de la participation. Hmm. Euh, wax dëgg yàlla dina am ay nit yoo xam ne am na nañu yéene def ay effort mais parce que simplement am na erreur ci collectif bi am na erreur ci saisir même même kiy saisir mais mën na def erreur. Hmm. fekk moom am na données yi mu def erreur alors donc li franchement li gënoon a yomb. mooy ñu automatiser ko et ñoom bu ñu ko bëggoon def dañ koy def mm-hmm. mais li ma si euh, jaaxal euh, njaga ñi ngi wax ci côté euh, doublon yak yooyu noonu am na ay député yoo xam ne tey opposition lañ far liñ doon proposé mooy ñu mën a bàyyi ku ñenn ñi maanaam maanaam nit ñi autant pour moi les électeurs ñu mën a parrainer au moins deux candidats yoo xam ne xëy na dina leen neex pour ñu porter seen i candidature parce que lii selon ñoom day violer même le secret de vote parce que ku nekk ki nga parrainé bu dee kenn nit la dinañ jàpp que pour les élus yak yooyu noonu est-ce que loolu yëpp tey bu fekkente ne ko euh, du xañ nit ñi de potentiel candidat yoo xam ne xëy na amuñu base électorale peut-être amuñu euh, dooley parti politique boo xam ne mën na leen a ngànk wala nekkoon assemblée am fa représentativité wala am ay maire wala ay ay président de conseil départemental euh, ñu xañ leen tey ñu mën a diriger sa pays. waa d'accord naa leen d'accord naa ni le fait que électeur bi nga ne ko yow kenn da nga mën a parrainer dafay dafay remettre en cause le principe absolu je dis bien absolu en fait du secret de donc tey bu ñu ubbi woon permettre électeur bi au moins mu mën a pare na ñaar euh, loolu doon na doon na doon na baax euh, beneen affaire bi aussi mooy ci toujours système parrainage bi je pense que euh, il faut que ñu ubbeeku ubbeeku bi mooy France gis nañ la fa xew. mais Marine Le Pen pour mu mën a dem il a ñu jàppale ko ñu jàppale ko parce imaginez France xalaatuñu mais Marine Le bañ bañ a dem. élection waay bañ a dem. Euh, c'est comme tey nga ni mais donte am na fi est-ce que tey war nañ mën a imaginer nga ni dañuy dem élection PDS war a bañ a bokk. Mhm. donte kala nañ leen ci leneen. alors donc euh, man dama jàpp ni bon euh, système bu mel ni amoon na aussi beneen. Mhm. après ils se sont retrouvés avec ay situation bu doy waar mooy système bi ñu teg tax na vraiment. Euh, pour ñu am candidat tax. y' a y' a pas de candidat. maintenant France. y a ce qu'on appelle euh, le système des cent 500 cent okay. mais France seen euh, maanaam vivier parrains yi xam ñaata la soo jëlee élu yeeg yëpp ils sont 42000. waaw ah. mais dañu jël 500 dañuy pour ñu parrainer la cinq cent ngay am. élu or ci 500 yi waaw am na député ñoom dañoo boole lépp député hmm. sénateur euh, euh président euh, maanaam euh, conseil régionaux après ñu ni. maanaam maire maire ville yu mag yi. donc vive bi yaatu na yaatu goo xam ni. yow mën na ci génn maintenant yow nan nga mën a ñëwee 600 euh, euh, euh, maanaam exécutifs territoriaux xam nga tey bu ñu jëloon conseil yi peut-être que ay sont ay 30 000. Mm. Mm. man je peux même présager de lan moo tax jëluñu ko. Mm-hmm. xëy na peut-être ils ont même un problème de fichier. et que aussi dañuy jàpp ni waaw boo jëlee conseil yi gars yi mën nañ leen a jox weccit après ñu pare leen ku leen neex. Euh, encore que même tey même parrainage élu yi euh, la le problème reste entier. parce que ñoom seen biir ci quatre-vingt euh, yi ñu am ou quatre-vingt yi ñu am bu fekkee ne amul maanaam benn candidat bu ñëpp déggoo mais ñi am na ci ñoo xam ni bu ñu waree dem. <laughs> mais mais wut wut wut treize députés jaaxalul leen. day jomb ci ñoom loolu sax mën nañoo ñoom ay trois candidats yoo xam ne moo nekk ñoom. d'accord Issa ñu ñëw ci euh, beneen euh, point bi moo aju ci pour euh, la réhabilitation de Karim Wade ak xalifa Ababacar Sall également yaa ngi doon wax ne am na neneen noo ko gisee woon njaga tey ji te ñu bëri tey liñ ci jàpp ne dafa am ay ndëgg sërëx yu ci lalu li tënku ci article googu